waaw ma maa maa maa leen di jaar waa waa Kadap di leen ñaanal yéen a xamaa ah, fu ngeen bëgg yàlla leen fa yàlla yóbbu di jaar waa làmb yëpp ah waaw man la man la Ngay Loum waxtaan ak waa Kadap hmm? yi. non pourtant maa ngi fi de maa ngi ci làmb ji toujours à chaque fois maa ngi maa ngi dem làmb waaw cest sama booy bu ñu bëree maa ngi suuf bu ñu bëreewul c'est pas la peine dama ci kaw rek toog jàpp sama njàmbur jàpp sama njàmbur waaw. Mhm. waaw ñoom ñëpp waaw. Mhm. Hmm? Hmm? waaw xam nga instant bii nii moom moment la boo nga xamante ni nii c'est pas la ngay ngay ngay ngay ngay forcer yenn forse yi parce que làmb ji comme instant bi xamoo fan la toll ak xamoo kañ ngay démarrer da def ndànk-ndànk rek maintenir sa forme rek comme ça buñ nee buñ nee làmb ji ubbi na comme saa nga mën a accélérer. mais moment bi moom ndànk-ndànk rek. ah mais xam nga xam nga déjà dafa jot dafa jot euh, mu am benn sélection boo nga xamante ni day am solo ci làmb parce que boo xoolee boo xoolee ci kaw. li guy gi def loolu lañu waroon def ci kaw boo xoolee ci kaw li guy gi def la ñu waroon def mais même affiche yi à chaque fois day xaw a doy waar ñu defoon benn grand contre xale bu mën a dem dem ku mënul dem toog xam nga tey boo jëloon ñoom Balla nga jox ko Boy ñaar ama Modou moom déjà waaw Eumeu Sène guy gi presque li ko taxoon a tere woon taxaw bariwul xam nga sélection boobu boo boo ko defoon nga jël Lac de Guiers nga jox ko euh, Gris Bordeaux musuñu bëree xam nga sélection boobu lu ko dàq ah mais même affiche à chaque fois même affiche même affiche day day xaw a day xaw a doy waar quoi waaw. <coughs> mooy li ma la wax rek. mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax nii loolu ci loolu laa dellu si waat rek tey bu ñu defoon sélection boobu tey ji day am lu mu changé lu bari ci làmb tey combat yi taxaw nii bari na mais doo dégg ku ci waxtaan sax mais tey ji lu affiche yooyu moo la tey ji bu ñu taxawoon tey waxtaan la foo toll waxtaan lay doon coow la coow lay doon ci dëkk bi waaw ah, merci waaw. waaw non grand contre la parce que parce que lu mu métti metti guy gi moo ko mag tuuti ci làmb ah? guy gi li mu li mu li mu li mu li mu li mu liggéey rëg-rëg liggéeyul xaaj ba mais li ma la wax rek pour làmb ji neex foog ñu def benn sélection waaw. mais ñu bëri na combat bi dafa nekk risque ci guy. ñu bëri na ne combat bi dafa nekk risque ci guy. Hmm? non ba nag sama xalaat sama xalaat pour man comme ñoom dañoo yor seen xale boo nga xamante ne dañoo bëgg mu dem ah pour man risque la risque bi ci ñoom la. waa yi fu nekk. ah waaw mais sooy sooy wax sooy wax euh, euh, sooy wax euh, guy gi di wax rëg-rëg aussi day day day am benn différence boo nga xamante ni nii day xaw a doy waar parce que guy gi li mu liggéey ci làmb ba nekk fa mu nekk ah xam nga rëg-rëg tegagu fa sax tànkam mais li ma la wax rek sélection boobu daf ciy baax pour xale bu mën a dem dem ku mënul dem toog waaw. non bu dee risque la rek mooy li ma la wax ñoom ñoo yor seen xale boo nga xamante ne dañoo mu dem ci kaw ah ñoom pour man risque la ci ñoom waaw. mais xam nga loolu nag aussi pour ma wax ko du yomb parce que suñuy préparation ak la ñu war a yóbbu stade bon du lu ñuy toog ci télévision yi di ko wax wala ci rajo yi di ko wax wala ci journaux yi di ko wax loolu ñun la ci suñu biir ñu liggéey yóbbu loolu stade mais pas ñu koy wax mais ñun ci li ñuy pare moom ñu ngi ciy pare te moom xam nañ ko bu baax xam nañu li ñuy pare ci moom. waaw mooy comme li ma la waxee xam nga làmb ji moom instant bii nii mënoo xam fii nii la ak nii day day day def benn kii rek su fekkente ni euh, jar na mu delluwaat après mu delluwaat su delluwaatee nag ba làmb ji des ay ay deux mois bu ko defee moom mu retourné si bu ko retourné see li ci des nag mu eggale ko fii waaw. mais guy gi amul doole. Ah, waaw mais doole am nga doole moom xam nga guy gi moom xam nga loolu lañ ko doon wax xam nga guy gi moom loolu mooy loolu mooy foram guy gi dafa am doole ah jeex na. mi ngi wax rek de. ah waaw mais xam nga nag aussi man rek sama booy la quoi booy bu booy bu booy bu booy bu euh, sérieux la. booy bu yaru la mais rëg kan la musa duma rëg rëg combat mi ngay gis mi muy bëre yëpp loxo bi du jóg ah kon nag aussi nag xam nga ñun xam nga ñu xam ñun ci làmb ji lañ nekk ku ci nekk rek la ngay def ñun xam nañ ko kon c'est pas la peine muy wax ci côté boobu bu na solo xam nga mooy li ma wax rek mu ngi wax rek mooy li moom day wax rek instant bii nii moo day wax rek de. ah. ah? waaw mooy li ma wax moo day wax rek boo yi fi jaar yëpp du noonu lañu de booy yi fi jaar yëpp ni ñu doon def wax rek waaye bu ñu demee sa terrain ba ah guy gi freiné la. <laughs> dégg nga li ma la nekkoo man la boo même bu dul moom booy yi fi jaar avant moom booy yi ñoon wax yépp ci guy gi lañuy jaar dem ah da wax rek waaye bu bis ba dootoo ko dolli. dootoo ko dolli. <laughs> bon xam nga yooyu xam nga yooyu yëpp gis nga gis nga doomu aadama gis nga doomu aadama. daal xam nga di waxtaan daal baax na di waxtaan baax na trop waaye nag lu la neex def lu la neex wax loolu suñu réew baaxoowu ko ah lu la neex def lu la neex wax suñu réew baaxoowul loolu waaw li ma ci li ma ci jeexale daal mooy euh, ñaan yàlla feebar bi jóge fi ak jàmm ñu dellu ci suñu activité mën a préparer suñu combat sérieusement bu ko defee di ñaanal guy gi à cent pour cent yàlla may ko ndam

loolu mu laaj loolu la war a laaj waaw. 35 millions 35 millions Lac de Guiers gu Lac de Guiers Eumeu loolu loolu xel nangu ko sax waaw. la daanee tamit yow teewul ko faire c'est xam nga xam nga tey jii euh, euh, euh, boo.